wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ya himmata ash-shaykh ihduri lana bi hadha al-mahdari ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي مجالس العلم ginnaaw bu ñu sante borom bi tabaraka wa taala julli ci bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu ñëpp ci nuyoob lislaam di jaajëfal ñëpp tamit ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko am ci groupe bi ci lu jëm ci tey doomu aadama yi yëpp ala kulli xaal ñu fas yéene ànd ak nag ci benn jotaay xam naa sax e, ki doon defar affiche bi mu mu ci bind tontu bu jëm ci julli juma ak julli mbooloo ak coronavirus waaye nag ñun duñ ko tuddee tontu e, dañuy wax ni rek wax suñu gis-gis la ci tolluwaayu àdduna bi wërngal képp ci ay xadaaya yu wuute bokk na ci xadaaya yooyu xadiya bi jëm ci wàllu feebar bi coow lu bari li ci am lan lañ ci mën a jàpp ak lan lañ ci mën a weddi bokk na ci xadaaya yooyu xadiya bi jëm ci wàllum diiney lislaam mu jëm ci wàllum julli mbooloo moo xam julli juróomi la wala julli ajuma niki noonu bokk na ci xadaaya yooyu xadiya bi jëm ci mesure yi nga xam ne président de la république jël na ko ngir lu yéenal réew mii nga xam ne moom mooy Sénégal ala kulli xaal dinañ ci indi suñu kéemtalaay kàttan ci lu méngoog suñu xam-xam euh, ci lu méngoog suñu xam-xam insha allah mbokk yi nekkatul information bu ñuy joxe wala ay leeral yu ñuy joxe ci feebar bii nga xam ne feeñ na fi ci weer yi ñu ne muy feebar boo xam ne tasaaroo na ci àdduna yépp ñu gën ko xamee ci coronavirus muy feebar bu wér boo xam ne euh, médecin yi saxal nañ ni lu am la lu gaaw a wàlle la te luy la waaye nag xam nañ ci taarix ne am na ay feebar yu ko jiitu woon muy ay xeesu xeetu feebar yuy wàlle yii di ay mbas yii di ay xeetu feebar yoo xam ne dafay wàlle ci deret waaye feebar bii nga xam ne mooy corona ci taarix fekke wuñ lu bari de ndax suñuy at bariwul musuñoo dégg feebaru mbas boo xam ne tare na nii ci taarix loolu moo waral nag mboolem jullit ñi di yëngatu ngir lu faagaagal feebar bi bal sax mboolem doomu aadama yi buñ ko mënee yaatal maanaam mboolem doomu aadama yi ñi ciy jullit ak ñu ci dul jullit ñëpp ñu ngi taxaw temm ngir janoog feebar bi xeexak moom ñu ngi koy xeex ci lu ñu yàlla jox ci kémtalaay ci kàttan ñu ngi koy xeex ci bépp moyen boo xam ne am nañ ko ngir xeex ko loolu lépp nag ñu ngi koy def pour lu jëriñ mboolem aalam bi moo tax mbokk yi ñu gis ci sababa feebar boobu nga xam ne médecin yi def nañ ci seeni jàngat gis ni nim feeñee dafa gaaw ñi muy laal gaaw na maanaam wàllante bi gaaw na te bokk na ci sii sabab mooy dajaloo yi ñuy dajaloo dajaloo yi doomu aadama yi di dajaloo ndax feebar buy wàlle saa yu daje amee dina am ci kum jugee jëm ci ci des te loolu lu wér ci jàngatu médecin yi moo tax euh, ñu ci bëri ci aalam bi ñu jël ay dogal ci dakkal mboolem xeetu ndaje yi moo xam lu jëm ci wàllum jaamu yàlla la wala lu jëm ci ndaje yoo xam ne ndajeb aada la loolu moo tax boroom xam-xam yi ñu ci bari ci mashariq al ard ak magharib al ñoom ñëpp ñu gis ni dafa jot ñu jël dogal ngir taxawal ay décision yoo xam ne dinañ ko teg ci alquran ak sunna ngir ñu mën a jàmmaarloog feebar yi nga xam ne lu naqaree xeexal la ba mën ba mën a yàlla mën ñoo dimbal yi ñu mën a mucc ci feebar boobu feebar bi nag gaa ñi wax nañ ci ay wax yu dul jeex mbokk yi feebar bi boroom xam-xam yi seen xam-xam màcc ci lii coow nañ ci ay coow yu bari ñi nga xam ne tamit dañoo yor seeni xel di analyser def nañ seeni analyse yu dul jeex waaye gëstukat yi tamit gëstu nañ ci ay gëstu yu du jeex wax nañ ni feebar bu feebar la boo xam ne ñu ngi jugee ci ay mala muy ay mala yoo xam ne waruñ di ko jëfandikoo ñu di ko jëfandikoo am na ñu wax ni ca la jugee am ñu ne ay doomu aadama ñoo ko créé ngir am jubluwaay boo xam ne mooy créer beneen ordre mondial maanaam li ñuy wax nouvel ordre mondial pour créer waat seeni business yu bees créer waat doxalinu aalam bi ci beneen doxaliin bu bokkut ak bi nekkee woon am na sax ñu wax ni virus bi amul waaye dafa am beneen gaz bu ñuy tuddee saarin tubaab di ko bindee ci S A R I moom lañu wax ni gaz boobu moo tasaaroo ci àdduna bi moo sabab feebar bii ñu wax ci ay wax nag wax yooyu ñu wax ci dinañ ci am luñ ci indi sukkandiku ci ci xibaar buñ jëlee ci benn jarida boo xam ne mi ngi nekk ci Tarablus muy Tripoli ñoom kat dañoo wax ni virus bi virus bii nga xam ne ñu koy wax corona dafa am gaz buñ koy masqué gaz boobu nag wax nañ ni dafa am américain yi benn tajriba buñ doon def ci gaz boobu gaz bi dañ ko def mu doon benn arme boo xam ne arme nucléaire la pour faagaagal ñu gën a bëri ci ñi nga xam ne seen seeni at euh, jëm na ci kaw pour faagaagal leen jële leen ci aalam bi mu doon Euh, mbir moo xam ne wax nañ ni américain yi ñu ngi ko njëkk a jaarale ci seeni laboratoire daal koy tasaare ci alam bi doon ko testé foofu nga xam ne mooy Afghanistan test boobu nag ñu ne ñu ngi ko defoon 4 janvier 2020 kon da gis ni bu fekkente ne xibaar boobu wér na ak danger yi nga xam ne ñoo nekk ci gaz boobu nga xam ne moom la wax gaz as-sarin da ngay gis ni mooy sabab bi nga xam ne moo waral feebar bii nga xam ne moo am ci aalam bi ndax euh, dafa am ak dëppoo boo xam ne dox na ci diggante al wilaya al muttahida ñu gën ko xam ci États-Unis d'Amérique ci guerre bi nga xam ne mi ngi doon dox seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy taliban yi te accord yooyu ñu signé mu am ay ndëgg sërëx yu nekk ci ginnaawam mooy xeex ak ñoom ci beneen façon bu du wut yëkkati ngànnaay jëmee ci ñoom léegi nag ñu jëfandikoo gaz boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee gaz sarin euh, président américain yi nag ba mu bañee xaqiqa boobu daal di siiw nga xam ne bu siiwee dinañ ko atte ci fee boo xam ne fee personnel la ci la dem ut ay accord yoo xam ne dina ko négocier ak italien yi muy ittifaqaat yoo xam ne Italia daf ko def ak wilayal muttahida ba mu amee seen accord ginnaaw gi mu sàkku yi tamit ci benn tabib boo xam ne benn médecin boo xam ne allemand la ngir mu méngoog moom ci liggéey boobu loolu lépp nag dara waralut ko lu dul xam gi tubaab yi xam ni ñoom soxlaatuñu seen màgget yi léegi nag nañu wut pexe moo xam ne dinañ éliminer ñi nga xam ne ñooy màgget yi ñu nangu ñu testé gaz boobu ci seen réew yi xibaar yi nag may wax ñu ngi ko jëlee ci jarida boobu ñuy tuddee Trablus wax naa na ni liñ ci wax bëri na ana moo ciy dëgg ak lu ci wut lu ci du dëgg waaye dañuy nettali rek bu ko defee buñ paree ñu def suñu analyse wax nañ ni wax nañ ni kaawu corona yi ñuy wax dëkk yi nga xam ne fa la bi tasaaroo woon fa ëppee te gaz boobu nga xam ne américains yi tasaare nañ ko ci biir bu yàgg ndax ñu ngi ko njëkk a tasaare ci 4 janvier euh, deux te kenn xamut ko ndax gaz boobu ay meloom wax nañ ni amul xet amul cafka amul couleur waaye nag dinay soppeeku jóge ci gaz jëm ci màdd goo xam ne madda saa'ila la maanaam loo xam ne day yol lu mel ni ndox poids bi mu am moo gën a diis poids wu ngelaw poids bi mu am moo gën a diis poids wu ngelaw wax nañ ni gaz boobu bañ defee tajriba bi ci dëkk bi ñuy wax Suuriya ci diggante ñaari fan lu mat junni ak ñetti téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom faat leen kon dangay gis ni bokk na ci gaz yi ëpp dangereux gaz yi gën dàqa rey tey yi gën a gaaw ci rey te bu wàccee ci kaw suuf tasaaroom dafa gaaw lool ci jaww ji te buy tasaaroo day tasaaroo tasaaroo bu yaatu eh, yi nga xam ne nag ci la ko doomu aadama yi mëna a wàllante mooy laalante ci der niki noonu dinañ ko wàllante ci ay bët niki noonu dinañ ko wàllante en tariqil istinsaq maanaam eh, sëqët boo xam ne day jugee ci nit dugg ci keneen loolu moo tax médecin yi bañu taxawee di jéema aar nit ñi ci feebar bi liñ leen di njëkk a tere mooy bañu jox kenn loxo waaye tamit nañ ut ay masque kon da ngay gis ni mbir mi nekkatut ci joxe loxo kese waaye luy naaw la ci jaww ji te dafa am fumu yem dafa am fu mu yem boroom xam-xam yi nee nañ ñim njëkk a dal soixante sept militaire lañ yoo xam ne ay soldats américain lañ mu ngi leen dal ci jeexitalu janvier deux mille vingt ci benn euh, atelier boo xam ne ñu ngi ko amoon ci Afghanistan américain yi nag nëbb loolu ci ñoom ñooñu nga xam ne feebar bi dal na leen jugee ci gaz boobu américains yi nëbbu loolu ci ñoom moo doon soixante sept soldats yi nga xam ne ñu ngi bokk ci soldaawu wu yi ci ba nga xamee ni nag loolu am na ci lañ profité yónni leen ñoom soixante sept soldats yooyu ca Siin ngir ñu participer participer ci euh, xew-xew woowu nga xam ne moo amoon ci Yuhan ca Siin ci février li waral ñu jël juróom benn fukki soldat yooyu ak juróom ñaar yóbbu leen foofu ngir lëntal ak lëndëmal lii sabab seen faatu ginnaaw bu ñibbisee ci mission boobu ñu demoon léegi nag xam nañ ni li sabab seen feebar boobu wax nañ ni feebar bi balaa muy manifester ci yow faaw mu def fukki fan ak juróom wala fukki fan ak ñeent xam nañ ni diire bi nga xam ne ci la war a manifester jotagul ñu jël ñooñu yóbbu leen mission Siin ci dëkk boobu ñuy wax Yuhan loolu nekk ci février bañ demee mission ba ñibbisi nag a ah, ci lañ génn àdduna ñu ealaan nekkat kat ñii li leen rey mooy virus boobu nga xam ne ñu ngi ko jëlee siin virus boobu moo rey moo leen rey e, bu ko defee nag chinois waay accord biñ amoon ak américains yi tax ñoom itamit ñu def loo xam ne maanaam lu ñu tuddee e, maanaam e, maanaam fen daal ngir seetal deru américains yi saqal seen réew ci benn virus boo xam ne mën nañ wax ni existé na existé wul maanaam buñ ne existé na ñoom ñoo ko créé ci ginnaaw gi waaye li sababoon virus bi mooy gaz boobu wax nañ ni sax am na benn médecin ci médecin wu chinois yi bu turbe ni ndekete li ñuy coow yépp corona corona mbir mi duut virus boo xam ne euh, comme niñ ko foogee nii déedéet waaye muy tukkee ci gaz boobu nga xam ne mooy gaz bi ñuy tuddee assaarine moom nag ba nga xamee ni feeñal na secret boobu dañ ko dàq ci bërëbu liggéeyukaayam daal di koy azlu ginnaaw juróom-ñaari fan ñu alaan ak deewam loolu yëpp ngir bañ gàcceeb américain yi moo tax alam bi léegi doo comprendre nu muy demee dañuy défendre seen intérêt ba lor population yi euh, moom nag ginnaawam dee liy firndeel loolu mooy njabootam def nañ ay vidéo ci YouTube ak Facebook di wane ni seen mbokk moomu dañ koo rey ngir secret boobu nga xam ne moom la feeñal ci loolu nag loolu moo imposé état wu chinois yi ñu créer nekk ak virus bii nga xam ne mooy virusu corona kon da gis ni ci pression wu américain yi la sukkandiku la chinois yi sukkandiku ngir créer virus bii nga xam ne mooy corona muy virus bi bi nga xam ne tamit moo gëlëm loo aalam bi yépp léegi nag ñu tuur ñu lëndëm ne ñu virus bi mi ngi juddoo siin bi tahdid ci dëkk bu ñu wax yuwaan eh, loolu yëpp ngir ragg deru Trump waaye tamit jéem a gëmloo nit ñi soixante sept soldats yooyu génn àdduna ci sababu gaz boobu ñu doon testé ñoom ñi ngi jëlee seen ak faatu ci lii eh, boroom xam-xam yi nag wax nañ ni gaz boobu gaz la bu gaaw ci raaya ndax ñaari poumon yi lay jàpp ci doomu aadama faagaagal la waaye nag gis nga euh, maanaam noonu la gaawee ci ray ñi nga xam ne dañoo aase ray ñi nga xam ne dañoo aase ñaari feebar yii la lay jural mooy du ñuy tuddee challul adalaat mu jëm ci ñaari poumon yi niki noonu iltihab arri awi loolu moo waral ñu ne feebar bi dina mën na la dikkee sa xët dinay métti say sa sa sa sa ginnaaw gi yooyu noonu yëpp li ko waral mooy lii waaye nag gaz gi nga xam ne mooy gaz bi ñuy tuddee assarin Euh, boroom xam-xam yi wax nañ ni diireem ci kaw jaww ji du yàgg ci ñetti weer la rek moo tax nga gis américains yi def benn ilaan wax ni kat corona moom dina fi jeex ci fin wu avril kon lii xibaar la boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Trablus 24 muy xibaar bu jara saytu nag bu jara def jàngat ndax dégg nañ version yu ne waaye version bii dafa jara taxaw e, dégg naa sànq suñu mbokk Mourid Gadiaga ak Cheikh Mohammed Gueye ñuy wax ni bu fekkoon joxe loxo la rek ana lu ci masque wuuti kon dangay gis ni mbir mi am na lu nekk ci jawwu ji ala kulli kon loolu xaqiqa la boo xam ne bu nañ ci bu nañ ko indi wala boog tajriba la boo xam ne bëggoon nañ ko indi ci lu jëm ci wàllu feebar boobu amaa nag ñun bu ñu considéré suñu boppu jullit ma wax ni feebar bi feebar bu dangereux la boo xam ne taarix musut koo xam ci gaaw gim gaaw ci wàlle ak gaaw gim gaaw ci raye te wax nañ ni lii sabab muy yokku yokku bu gaaw boobu mooy ndaje moo xam ndaje gi ndaje ibaadiya yala wala mu nekk tajamuwaat yoo xam ne aadiya la bum ci mënti doon daf koy aggravé ñu wax sànq ni boroom xam-xam yi ñi ci ëpp ci mashariq al ard ak magharibiha ñoom ñëpp gis nañ ni dañoo war a jël ay dogal yu yu yu yu yu dëgër ci taxaw fexe ba daje yooyu nga xam ne mën naa jur yokku yokkuteg feebar bi ñu dakkal ko ngir xeex ko te loolu nag buñ ci bëggee génn maanaam buñ bëggee mucc ci feebar bi li ci njëkk mooy ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala ñun en tant que jullit tàllal suñuy loxo ñaan ko waaye toroxlul ko sellalal ko jaamu gi ngir mu teggil ñu balaa bi nga xam ne moom la teg aalam bi yépp teg ko jullit ñi te loolu moo tax ñuy sàkku ci ñépp ñu bëril ñaan yi te jublu borom bi subhaanahu wa taala bëril jëf yu baax yi ak saraxe yi ak yu mel ni ñoom ndax mboolem nit ñi liñ xam ci jullit ñi ci taarix mooy depuis ahdu yonent bi alayhi wa sallam maanaam depuis jamono yonent bi ba tey gis nañ ni mbas yu mel nii wala yenn musiba yi bu wàccee ci xeet bi rek li ko waral mooy bàkkaar yu bari yi nga xam ne moom la xeet bi di jëfe kon nag dafa war ci ñun ñu dellu ci borom bi subhanahu wa taala di jëfee ay ndigalam dellu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon nañu ni eh, bokk na ci yi waral musiba yu mel ni mooy yàlla boo demee ci xadis xadis bi abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu anhu moo wax ni nekk nañ benn ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ne kayfa antum ida waqaat fiikum xams moo yéen ana nan yan pexe ngeen di am su juróomi mbir ci yéen te maa ngi muslu yàlla juróomi mbir yooyu wàcc ci yéen wala mu fekk leen ci dund ci beneen riwaaya riwaaya bi dafa wa auzu billahi an takuna fiikum aw tudrikuha ci beneen riwaaya mu ne aw tudrikuhun lii nag maanaam wax jooju muy juróomi mbir nga xam ne moom la xadis di wax juróomi mbir yooyu yëpp doomu yi lay dal moo xam jullit lañ moo xam yéefar lañ te li tax mu di leen dal mi ngi jugee ci li nga xam ne ñoo ko fàggul seen bopp ci seeni jëf ak seeni wax ci jëf yi nga xam ne ñu ngi koy def te gërëmu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kayfa antum iza waqaat fiikum xamsun wa aaudu billahi an takuna fiikum aw tudrikuhun mu ne ana ban pexe ngen am su juróomi mbir wàccee ci yéen maa ngi muslu yàlla ngeen fekkee mbir yooyu wala mbir yooyu dab ci ci yéen juróom yooyu mooy yan dafa ne ma zaharat alfaxisa fi qawmin qat yaamalu biha fihim alaaniya illa zahara fihim taaun wal awja yonent bi alayhi dafa ne amul benn xeet boo xam ne dañuy fësal ñaaw téef di ko def publiquement comme ni mu xewee ci jamono ji ci aalam bi yëpp nag du wut ci Sénégal wala ci fii wala ci fële waaye ci aalam bi yëpp ni mu fi xewee def ñaawteef di ko fësal ba pare di wane ngóora dafa ne illa zahara fi mu taawun lu dud ni rek mbas dina feeñ ci ñoom wal aw ak aki métit allati yi nga xam ne lam takun fi aslaafihim métit yooyu masta am ci leen jiitu kon buñ ne feebar bi danger bim am feebar musut koo am ndax xam nañ sida ay nit ko créé waaye am na nu muy wàlle yombul xam nañ ci yeneen maladies yi lu mel ni Ebola bi fi nekkoon xam nañ ni muy waaye bii ni muy wàllee nu mu gaawee ak i tamit amee solo kon euh, kon yaa ngi gis li ko sabab en tant que kuy waxee diine mooy ñaawteef yi yu bëri te di ko fësal ñaareel bi mu ne buñ demee ba njaaloo ak mbiram ngóor jigéen ak yu mel ni moom maanaam yii nii yëpp dafay dugg ci musabibaat yi maanaam njaaloo mbiram ngóor jigéen ak yu mel ni moom ñoom ñëpp dafay dugg ci musabibaat ci sabab yi nga xam ne dafa dafay bokk ci sabab yi nga xam ne moo waral feebar yii nga xam ne ñu ngi koy am te lu ci bari ñu ngi koy jëlee ci xar bu di ko indi ci ñun amuñ ko woon maanaam mag ñu njëkk ña lii yëpp amu fi woon yonentu ne amul benn xeet buy fësal ñaaw téef lu dul ni taawoon day feeñ ay métit jeex tey loolu rek lañ ciy gis ñaareel bi mooy wama munia qawmun zakatu illa sama amul benn xeet boo xam ne dañuy ñàkk joxe azaka lu dul ñu téye ndox mu teg ci ne bu doonutoon bàyyi ma yi duma taw kon bii mooy ñaareel bi nga xam ne dafay dafay waral yi nga xam ne mooy tax balaa yeeg musiba yi di wàcc ñetteel bi yonent bi sallallahu alayhi dafa ne wama baxasa qawmun qawmunil mikyaal wal mizaan illaa uxizu bi sinin wa siddatin maun wa jawri sultaan amul benn xeet boo xam ne dina yàq seen balance yeeg seen peesekaayel lu dul ma nattoo leen bekkoor ak ñàkk gu tar ba dépense tar ci ñoom waaye ma nattoo leen buur yoo xam ne dañuy jeng ci ñoom kon ji sabab la ci balaa yi wàcc ci ñun ba xadis bi jeex juróom yooyu xadis bi tudd yëpp muy yii nga xam ni lim naa ñett yi ñeenteel bi mooy eh, saa yuñ demee bañ neenal téere bi yàlla bi neenal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faaw suñu suñu suñu borom subhanahu wa taala wàcc ci ñun ay musiba kon dañuy gis ni juróom yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax buñ ko xoolee dañ koy fekk ci suñ bopp buñ ko xoolee dañ koy fekk ci suñu bopp dañuy fekk ni yi ci ëpp mu ngi fees dell tey ci suñ suñu biir kër yi ñun jullit ñi moo tax bu feeñee ci ñun mbas wu mel nii wala feebar wu mel nii ak yi ko jiitu yu mel ni Ebola ak yooyu dañuy xam ni natt la yoo xam ne suñ borom subhanahu wa moo ñu ko teg li ñu war mooy ñu dellu ci yàlla tuub jéggalu waaye jéem a jëf jëf ju rafet waaye di génne sarax ngir yàlla jégal ñu suñuy rëcc rëcc yooyu suñ xamee lii nag ñu xam ni mbas mii nga xam ne day lor te li koy waral mooy jaxasoo jaxasoo moo koy waral li koy wàññi mooy beru ku nekk toog sa kër ak sori nit ñi kon nag lii maslaxa ci diine te suñ diine diiney maslaha la mooy ñu digle li nga xam ne mooy tàqalikoo maanaam kenn ku nekk toog sa kër ngir lan ngir xañ feebar boobu nga xam ne dafay développé ci ay dajaloo xañ ko mu développé rot na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ab bis mu wax bilaal ne ko noddal jamono jooju jamonoy taw la mu taw suuf si taa mu lëndëm yonantu ne ko waxal ashhadu an la ashhadu anna muhammadan rasulullah soo paree nga wax sallu fi rihaalikum sallu fi buyutikum noddal ba boo yeggee fi nga war a nit ñi ñëw nga ne leen julli leen fa ngeen ne julli leen ci seen kër ya lii digle la bu jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa digle bii nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jugee lan la yonentu digle mooy kat na jullit ñi jullee timis ak gee ci seen biir kër yi te yonentu moo gën a xam ni julli mbooloo mooy farata julli mbooloo du sunna farata la ci umma bi ba pare mu digal saxaaba yi nee leen jullee leen seen kër yi timis ak kon loolu liñ ci war a déggee mooy daf ko def ngir maslaha bu boo xam ne ñëpp lay jëriñ euh, xadis bi boo ko jàngatee dangay gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ni digle woon julli mbooloo dëhal ñu ngëneel li ci ne tey moo tere julli mbooloo mu mel ni daf ñu xañ ngëneel gi waaye ngëneel li dinañ ko am ci suñ biir kër yi ndax digle la bu jógee ci yonantu bi sallallahu alayhi noonu da gis ni Omar ibnul Xataab taarix na ni ab bis génn na jëm saam ci Abi Ubayda ñi nga xam ne moom la fa yónni woon ba mu demee ba yegg ci benn mintaqa boo xam ne ñu ngi koy woowee Sard nit ñi dikkal ko bokk na ci ñi ko dikkaloon Abu Ubayda ak ñeneen ci saxaaba yi ñi nga xam ne teewee nañ loolu bokkoon na ci abu ubayda bokkoon na ci abdullah ibnu qays al ashari bokkoon na ci abdurahman ibnu awf ak ñeneen ci kibaaru sahaaba muhaajirina yeeg ansaar yi ba loolu amee nag eh, omar ibnul xataab ba nga xamee ni xam na li xew mu laaj muhaajiruna yeeg ansaar yi ñu wuute ci mbir maanaam ràmm gi fa amoon man euh, niñ koy waxatee sax mbas gi fa amoon nga xam ne képp ku topp képp ku dugg ci dëkk ba mën na laa laal mu laaj jullit ñi seen xalaat bam laajee ña fa seen xalaat ñu wuute ci mbir mi ñenn ñi ne nañ wakkirlu ci yàlla rek ñu dugg ci dëkk bi ndax xare bii ñu jëm ndigalal borom bi la te ndogalam la Seydina Omar def tarayus maanaam mu def ndànk ci mbir mi ba keroog Abdullah Abdurahman ibn Awf ñëw ndax dafa dafa fàddu woon ba mu ñëwee mu wax ko ne ko eh, ndax maanaam ki nga xam ne mooy euh, Abu Ubayda waxoon na Omar ibnul Xataab ne ndax da ngay daw ndogalu yàlla Omar ne ko waaw damay daw ndogalu yàlla jëm ci ndogalu yàlla mu misaal ko sax ne ndax soo nekkoon ci ab xur di sàmm muy xur wu naat nga an maanaam nga nekk ci aw xur ànd ak say gëlëm ndax nga gis bërëb bu naat ndax doo jugee ci saxaraa dem ci bërëb bu naat bi ngir e, say jur mën a lekk mu ne ko ankay mu ne ko da bàyyi ndogalu yàlla jëm ci ndogalu yàlla kon mbir mi daw ndogal lii la jëm ci ndogal lale ba loolu amee abu ubayda kii abdurahman ibnu awf moo jug wax ni man de jàng naa ci am na lu ma lu ma xam ci mbir mi ñu ne ko mooy la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ne bu feebar amee ci bërëb bu fa kenn dugg te bu fa kenn génn dem loolu nag li tax mu def ko mooy wattu ñi nga xam ne ñoo nekkut ci dëkk ba maanaam ñu nekk ci biir dëkk bi te am feebar bi nañ leen toppatoo faj leen def lu ñuy wax quarantaine ñi nga xam ne nekk nañ ci dëkk bi te amaguñ ko te wóoruñu ne na ndax am nañ ko amuñ ko nañ toog ci biir dëkk bi ndax ñoom seen ak génn du bokk ci li nga xam ne dafay woyo falal ña feebar bi dal maanaam ñoom ñi feebar bi dal buñ génnee rek day gën a diis ci ñi nga xam ne ñoom la feebar bi dal moo tax nañ toog ci dëkk ba nañ toog ci dëkk ba keneen bu mu jugee feneen ci tamit dugg ci dëkk bi loolu lu am solo la boo delloo ci téere bii boo delloo ci téere bii ñuy wax amalu muhammad ibnu mustafa ibnu xawaja ibnul xawaja mu doon boroom xam-xam bu mag dëkkoon Algérie bokkoon ci boroom xam-xamu tijaan yi téere boobu téere bu am solo la boo xam ne ñu ngi ko taalif ci ay jëfam mi ngi jàngale ci biir téere bi ci buntab ñeenteel bi di wax ni fi fi jawaazi taxassuni min waba e, doomu aadama bi dafa dagan ci moom mu fegu ci li nga xam ne mooy xeetu mbas yi ndax yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci téere bi ne wala tulqu aydikum ila tahluka bu leen sàndi seen bopp ci lu leen di alak boobu nag boo koy jàngat dangay xam ni aaya boo xam ne boo xam ne aayatun amma la fi kulli dararin ci mboolem lor buleen leen dugal seen bopp ci lu leen di alag loolu dafa généraliser mboolem lu lay alag bu ko defee nag nga dugalaale ci mooy tandiku li nga xam ne mooy mbas yàlla wax ci alquran ba ne wa xuzu xisrakum jël leen seeni matuwaay ci ay aaya yu bari al imam al allaama al qastalaani ba muy sarxu saxihu imam muslim imaamu buxaari ci tafsiru aaya bi dafa ne aaya bi li muy tegtale mooy dalla zalika ala wujubi alxadari min jamiil madaari almaznuuna wa min samma alima anna al ilaaja biddawaa'i wal ixtiraazi an ilwabaa'i wattaxarruzi an iljuluusi taxta aljidaari almaa'ili waajibun mu ne aaya bi dafay tegtale ni dafa war ci yow ci doomu aadama bi mu motta moytandiku lépp lu koy lor wala lépp loo xam ne am na ak njortu ci ne kat bu ci yeggee mu loru ci loolu nag bokk na ci faju boo feebare bokk na ci tamit moytandiku mbas mi bokk na ci tamit moytandiku toog ci ron miir wu jeng ndax bu daanoo sa kaw nga dee loolu lu am solo la lii nag dafay dëggal waxu Omar ibnul Xataab bi mu waxoon ya aba ubayda naam nafirru min qadarillahi ila qadarillah dañuy daw ndogalab yàlla dem dali ci ndogalab yàlla loolu lii moo koy tegtale te boo delloo dangay ngay dégg li Abdurrahman ibn Awf wax moom nga xam ne dafa xiyaaboon ba mu ñëwee dafa ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida samiatum bihi bi ardin fala tuqaddimu alayhi wala fala taqdumu alayhi wa ida waqaa bi ardin wa antum biha fala taxruju firaran minhu mu ne dégg na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallama bu ngeen déggee suuf su mbas mi am bu leen fa dem bu leen fa fekkee bu leen fa génn ngir daw mbas mi Omar sant yàlla kon wax ji ma doon wax na le euh, al Qastalaani firee waxu zu xisrakum Omar ji moo koy dëggal te boo demee ci saxiixayn di nga fa fekk xadiisu usaamatu ibni zayd radiallahu anhuma mu ne yonent dégg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne taawun la boo xam ne yàlla moo ko wàcce woon ci kuréel ci banu israil ak ci ñi leen jiitu woon mu ne bu ngeen ko déggee ci suuf sum am bu leen fa dem bu leen fa fekkee bu génn ngir daw ko mbokk yi ñun fuñ tollu xam nañ ne li ñu war mooy ñu sàmm suñu réew réew nag buñ ko waxee mooy environnement bi ngay dundu bii a bi ngay dund te lislaam daf ñu sant toujours ñuy wattu yii nga xam ni moom lañuy ñuy tuddee al kulliyaatul xams kulliyaatul xams yi nag mooy shariat ci yi nga xam ne xam nañ ko mooy benn nga wattu sa diine ñaar nga wattu sa bakkan ñett nga wattu sa xel ñeent nga wattu sa der juróom nga wattu sa alal yii lañuy ñuy tuddee kulliyaatul xams kulliyaatul xams yii nag nga xam ne moo ëmb sariyaatu sax muy wattu sa diine nit ki balaa moo tal jaamu yàlla dafay am wér-gu-yaram kon wattu sa diine bokk na ci wattandiku feebar loolu moo tax bu fekkente ne dajaloo mooy waral lii nga xam ne mooy yokku teg feebar bi dañuy gis ni liy maslaha ak diine lim ñuy digal mooy ñu fexe ba nit ñi sore ci loolu nga xam ne moo leen di alak fexe ba nit ñi sore ci loolu nga xam ne moo leen di alak te médecins yi def nañ seen gëstu ci seeni tajriba wax nañ ni bokk na ci liy tasaare feebar bi mooy alixtilaat jaxasoo jaxasoo bokk na ci lii euh, tasaare feebar bi moo tax liñ gis ulama yi boroom xam-xam yi ci mboolem réewu jullit ñi góorgóorlukat yi mufti yi ñoom ñépp ñu dëppoo ci ne nañu tere jaxasoo boobu ñu farataal ci suñu bopp lu ñuy tuddee al azlu anin beru nit ñi tey tamit ñu forcé leen ko forcé kenn ku ci nekk mu toog ci këram jullee fa waxtu yu julli juróom ba ci sax jullik ajjuma ba nañ ko jullee ci biir kër yi foofu nag mën nañ fa def taxaw seetlu bu ndaw taxaw seetlu biñ ciy def am na ci boroom xam-xam yi ñu nangu sax ñu tëj jàkka yi waaye ci condition condition bi mooy ñu bàyyi fukki nit ak ñaar ñu julli juma ndax ñu sauver li nga xam ne mooy julli jumaa ji bokk na ci boroom xam-xam yi ñu mel ni euh, ñi nga xam ne ñooy ahnaaf yi ñoom gis nañ ni mën nga julli jumaa ci sa biir kër yéen ñett ak kilimaan muy ñeent loolu décision loo xam ne dañu leen koy nangul waaye nag dañuy wax ni euh, dajaloo di julli jumaa su fekkee mbooloo mi mën nañoo nekk fukki nit ak ñaar ñu mën koo def te benn problème du ci am loolu war naa mën a nekk tey tamit dina wér suñ ko defee dina wér suñ ko defee waaye nag bu fekkee dañoo jël dogal pour tëj mboolem jumaa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ndax état yi nga xam ne moo yor nguur ak àdduna moo ko digle ngir sàmm li nga xam ne mooy bakkanu nit ñi ak seen xel seen der seen alal boobaa nag mun nañ sukkandiku ci loolu ba toog ci suñu kër yi jullee fa li nga xam ne moom mooy julli jumaa bu ko defee nag euh, da ngay gis ni euh, yonent bi sallallahu alayhi li li nga xam ne moom la abdu abdurahman ibnu awf nettali woon ne bu ngeen ko déggee ci dëkk bu leen fa dem bu leen génn dëkk bi loolu tegtalewul dara lu dul beru dul beru tegtalewut dara lu beru te gis nañ ni loolu yonent bi sallallahu alayhi wax mooy jur saafara soo xam ne jàngoro ji du wàlle kon nag bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo digle loolu te ci hadis bi njëkkoon a jàng mu dig digal laal noddal ci sabab ak taw ne waxal gaa ñi ñu jullee ci seen kër kon loolu mën nañ ko natt ci lii bi ci des mooy bi ci des mooy jullit juma tere ko tere goo xam ne dañ ne dootul am déedéet kenn waxul ni jumaa yi dañ koy tëj mutlaqan déedéet waaye dañ koy tëj ngir sababu mbas mi am ci àdduna bi te loolu bokk na ci daruraat yi moo tax dañuy wax ni euh, juma dañ ko ilga lu tax ñu il ko ndax mbir mi wàcc ci kaw doomu adama yi moo noot doomu aadama yi te mooy loru loru googu nag ci la boroom xam-xam yi sukkandiku ne dina dagan ñu tëj bërëbu jaamukaayu yàlla yi ak bërëb yi ñuy dajee dajeeb aada ngir méngoog ñi nga xam ne ñooy suñuy ulil amr nga xam ne digle nañ loolu ci république bi ñu war koo mën a def ngir lan ngir ñu am génnuwaay génnuwaay bi mooy lan mooy ñu fexe ba wàllante bi ci feebar bi du am ñu fexe ba wàllante bi ci feebar bi du am ndax fuqaha yi xam nañ ni mazhabu Shaafi'i ya ñoom ak ñenn ci Malike yi sax ñoom dañoo wax ni juma dëkk bu mag bu ne benn juma la war a am kon ana lan moo sabab taaddudul jumaati kon loolu yëpp dañ koy def ci natt ci xam-xam niki noonu xam-xam bu gaaree ñu war a natt ci tëj jumaa yi ngir lan ngir sàmm sàmmwanteeg lii nga xam ne feebar la buy wàlle loolu lu xel mën nangu la moo tax xadiyat yi dañuy gis ni xadiyab mooy tëndiku feebar bi la waaye nekkut xadiyab tëj jumaa yi nekkul tamit ñaax nit jullit ñi ngir ñu gàddaay jumaa yi duut weddi jumaa duut weddi jumaa waaye euh, mbir la boo xam ne dafa gaar li ko gaar nag mooy loru li nga xam ne mën naa wàcc ci jullit ñi buñ dajaloowee ngir julli kon nag loolu moo tax li ñu war a def mooy ñu euh, kenn ku ci nekk toog sa kër bu ko defee ñu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala defaraat suñu digganteeg moom di ñaan ngir yàlla musal ñu di ñaan ngir yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar bu ko defee rek nattu wii dina teggeeku ndax yonentu waxoon na sallu fi rihaalikum sallu fi buyutikum loolu mooy asaasu ñi nga xam ne def nañ ifta ci borom xam-xam yi ne nañ toog suñ kër yi bañ dem ci jumaa ji te loolu ku ne xam na maslaha la ci mboolem umma bi maslaha la ci mboolem umma bi ndax loolu mooy li nga xam ne moo ñuy musal ci feebar bi kon nañ toog ci kër yi nañ toog ci kër yi nañ toog ci kër yi gis nga jihaad ni mu nekkee farata Omar ñu Xattaab gàllankoor ko ndax mbas moomu gis nga julli gi mbooloo ni mu nekkee farata yonent bi sallallahu alayhi gàllankoor ko ndax ak taw ak lëndëm kon nag lii nga xam ne dafa aju ci bakkanab doomu aadama te doomu aadama dafa am droit sàmm juróomam yi muy diineem di bakkanam di xelam di alalam bi deram kon ala kulli xaal yii dañ ko war a sàmmwanteeg bu baax kon mbokk yi xam naa kàddu yi bëri na lool te amul solo ñu ngi ñaan yàlla boole ñu defal tawfiq ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala lépp luñ fiy wax lu ci jub ñu xam ni ci moom la mu bind ko suñuy téere jëf lu fi dëng mu jéggal ñu rek xam ni dañoo bëggoon lu baax